alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV mbokki jullit ci kër cheikh al islam alaaji ibrahima ñas radiallahu anhu ñu ngi amaat mbégte rëy toog fii ci ron suñu wasila ci pay bi suñu yaay ci pay bi ci doon suñu sëriñ ki nga xam ne moom lañu ñu Cheikh Ibrahim dénk di waajal bés bu màgg bii nga xam ne ci bés yi gën a màgg ci suñu bés yi la bokk muy siyaare Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ànd ak suñu sëriñ Zeyda Yaane ne Caam ko waajalaat keroog àjjuma biñ jullee juma ba pare am na appel bu mu jotale woon ci njaboot gi waaye xam nañ ne moom bu siyaare bàyyi taxawee amatul beneen yitte ak beneen bëgg-bëgg siyaare bi moo ñu oowaat tey ne nañ ñëwaat keroog waxoon nañ waaye nañ waxaat ndax lenn dong la ci jublu wan ñu moom yëngatoom ak dalam yépp xidmaal sëriñam la Mawlana Cheikh kon buñ ne nañ dem siyaare ji bàyyi moom heure bu nekk mu ngi ñuy wan taalibe buñ oote siyaare sëriñam waratul am beneen yitte ak beneen soxla lu dul yëngatu ci lool loolu moo nekkaat sababu daje tey bii mu ooñu ne nañ fàttaliwaat njaboot gi ak mbokki taalibe yi ne leen amuñ beneen yitte lu dul dajale liñ am indi ko teg ko ci ténxam li mu yóbbul ko imaam akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé comme niñ ko daan defee ñu dajale ko yóbbul ko njabootu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci buntab xalifatul Cheikh Tidiane Ibrahim Niass mi nga xam ne tey moo nekk xalifa bi ci jamono ji kon mbokki taalibe yi oote baa ngi noonu ñun dañ doon ubbi waaye jotaay bi am na borom ki nga xam ne ay kàddoom moo gën a jot suñu yës gën koo matale moom lañuy jox kàddu gi mu wax ak yéen ndax moom bëgg-bëggam ñu xam ko ñun dañ doon ubbi rek ci ndigalam pour wax loolu yaa booy kon asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu gaa ngi noonu programme sa programme baa ngi nii nekk sa programme kon njaboot gaa ngi lay déglu ak mbokki taalibe yeeg jaami yàlla yépp ci oote baay bi suma yaay mu ne na mu ne nañ def kenn ku nekk benn faatiya ak ñetti salaatul faatiya ñu addiyal ko maam Baye Niass radiyallahu anhu ak mboolem njabootam pare ñu defaat faatiha ñetti salaatul faatiha addiyaal ko Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu ak mboolem njabootam gi suma yaay mu ne alhamdulilah imaam mooy nekk imaam nekk xalifatu Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu yal yàlla may ko wér te yàggal ko ci sëñ kanam lool lool lool lool yàggal taxawaayam ak mboolem njabootu Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu di ko siyaare di ko ndokkeel itam ci siyaare bi ñu jublu di nuyu itam sëñ sëriñ imaam akbar imam Cheikh Tidiane Cissé nga xam ne suñ këlipa la suñ waajur la suñ sëriñ la suñ bunt la ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye suñ bunt la ci pay bi ñu ngi koy ziare ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko ci suñ kanam may ko wér te eggale mboolem mi batam <coughs> ci pay maamam bi nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye nga xam ne maamam rek la bëgg ñu ngi koy ziare bu baax di ziare mboolem njaboot gi bootu ci kanam barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye di siyaare mbooleem xadara bi yëpp di siyaare mbooleem njobatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu di siyaare góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi Baye amul ndaw Baye njabootam yëpp ay mag lañ ay kilifa lañ suñuy sang lañ ñu leen di siyaare di siyaare xadara bi yëpp di siyaare mbooleem mbokki taalibe Baye di wax ne ñu ngi jublu ci bés buñ fonk bis boo xam ne bésu suñ sëriñ la muy lan muy suñ siyaare sëriñ bi nga xam ne benn ñun taalibe yi ñun la ko yàlla jagleel ñi di ko defal suñ sëriñ muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu mu nekk suñ buntu defaru nekk suñ buntu yokkute waaye mu nekk itam suñ buntu mbëggeel ci jëmi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel mboolem muxaddami bayyi di ndokkel mboolem njabootu sayyid ali sis radiyallahu di ndokkel mboolem njabootu Serigne bay bay ngess radiyallahu di ndokkel mboolem njabootu Maulana Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu di ndokkel mboolem njabootu sayyid euh ak Seydi Ousmane Ndiaye ak mboolem njabootam di ndokkel mboolem njabootu euh Serigne Omar Touré manam Cheikh Omar Touré nga xam ne ñoo ñooñu ay kàngaamu baay la di ndokkeel itam mbooleem njabootu Cheikh Assane Dem ndax ci mu xaddami baay la bokk euh, di ndokkeel mbooleem njabootu Mamale Thiam di ndokkeel njabootu mu xaddam yëpp rek ak mboolem ko àndoon ak baay tam ngërëmal baay rek ñu ngi ndokkeel sa njoboot di ndokkeel waa xadara bi yëpp di ndokkeel mbooleem taalibe baay di ñaax rek sama njaboot ne àjjuma jàllale woon nañ message pour ñu gën a góorlu ci suñu wàllu taalibe ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu waaye tey dañ kaa dolliwaat maanaam ñaareel ko ndax euh, nekk góor baax na waaye ñu ne la góor góorlu dafay tax nga gën a doon góor baax baax na waaye lu gën a baax moo baax xam naa ne fàttewu leen ko waaye dama leen koy gën a fàttali rek ne buntu la ci ñun maanaam buntu njëriñ la ci ñun ñi xitmaal jëmm ju toll ni Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu liggéeyal ko nekk na suñ yokkute ci suñ wàllu jaayir ak suñu wàllu baatin nekk na loo xam ne luy law ba ilaa abid la te suñ njëriñ la yokkate la ci jaayir ak ci baatin kon maa ngi wax ne njaboot gi maa ngi koy dalee ci njaboot gi nekk fii ci senegal ak li ko wër li ko dalee ba Gambie li ko dalee ba euh, bitim réew euh, njaboot gi nekk France nañ def seen itte ci siyaare baay bi lépp luñ am nañ koy indil baay njoboot gi nga xam ne bii ne ñoo nekk Londres lépp luñ am ak ka ko jiite lépp luñ am nañ ko indil baay njaboot gi nga xam ne ñoo nekk Allemagne naka si noonu lu ñu am nañ ko indil baay njaboot gi nekk ci Espagne ñoom ak ña ko jiite lu ñu am nañ ko indil baay njaboot gi nekk ci Italie ak njaboot gi ak fu ñu mën a nekk rek ak fu ñu mën a nekk ci bitim réew maa ngi leen di o ci siyaare baay bi ne lépp luñ defoon daaw buy benn ren nañ def fukk waxoon naa ko keroog àjjuma waaye dama koy dellu baamtuwaar rek. buñ wax rekk ne defoon naa daaw ren euh, mën naa def nii déedéet dox sax boo yëqee tànk dangay ngay beneen tànk bi te damaa dégg sama sëriñ mu ne ku doxut rek taxaw nga kon at ba at lépp lu ngeen ci bëgg a def def ngeen ko kon def ci siyaare baay bi seen yokkute la euh, seen ndimbal la seen defaru la seen am li ngeen di ut la kon jë jël leen li ngeen am ngeen jaayanteeg baay baay ku jaayanteeg moom doo ko rëccu parce que boole ki nga xam ne bii du jeexal wala li nga am sax moo la ko jox loolu amul pertement kon maa ngi leen di woo yéen waa bitim réew ne leen lépp lu ngeen defoon daaw su fekkee benn la wala ñaar la wala ñett la ren fukk ngeen ko def wala na ngeen ko def ñaar fukk ndax seen yokk la fii itam ci Sénégal ni ko dalee ci président yi nga xam ne bii kenn ci Seydou Aliou mii toog nii dend ak man ci sama jàmm moo jiite mbooleem daayira yépp mooy seen président li ko dalee ci moom ak ñi bootu ci gannaawam li ko dalee ci daayira Gàmbi bi ak yeneen daayira yi aju ci moom li ko dalee ci daayira yi nekk siin ak yépp fii njaboot gi am na ñu nekk ba siin ñoo xam ne bii ñoo fa teewal xadara bi na ñëpp jël liñ am ñu jokkoo ak président daayira bi nga xam ne bii na moo mooy nekk daayira euh, président daayira yëpp mooy seen njiit nañ jokkoo ak moom ci téléphone nañ am ak moom contact li ñu am yëpp nañ ko yónnee ñu dem yóbbul ko Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye parce que moo ko moom euh, nit euh, sooy góorgóorlu am ku la ne góorgóorlu da nga koy doya sant yàlla te ñun suñ sëriñ xidmaal Baye rek ci lañuy ñu xir ci def lu baax rek la ñu xër liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye bëgg ko rek ci la ñu xër ndaxte loolu mooy suñu wóolóor maanaam mooy suñu yokkute mooy suñu ngëneel moom lañuy tiitaroo moom la ñuy sagoo kon lii mooy message bi ñuy jàllale tey biñ jàllale woon rek doy na waaye man maa xër ci sama sëriñ damay dem ba xalaat nag sax déggu leen li ma wax ma dellu ko baamtuwaat ndax Mawlana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu da doon def bu siyaare baay jotee mu takk ndiggam dem ca penc koosi ba ne indi leen li ngeen am yëpp ma yóbbul baay maa ngi déggee ci benn mu xaddam ñu nettali ci benn taarixam boo xam ne taarix bi ma neex la man kuy njëkkalante ci baay rek danga may neex mu ne dafa woo ña ca penc ma ñëpp ne leen kaay ba ñëw moom mu génn lim am yëpp jóor ko ne yéen indi leen li ngeen am ngeen boolanteeg man ku ma gën a bëgg baay rek defal ni ma bëgg defal ni ma def mu ne ku ma gën a bëgg baay rek defal li ma def génn li mu am yëpp jóor ko ne ku ma gën a bëgg baay rek na def li ma def ni man loo rek laa kooku rek laa nawloo man njëkk njëkkalante ci def ci baay rek kooku laa nawloo moo tax doy na ci buntab taalibe premièrement mooy muhabbat maanaam nga bëgg sa sëriñ deuxièmement mooy nga xitmaal ko maanaam nga ñaqal ko nga liggéeyal ko li nga am nga jox ko bu doon tool bàyyi la ñun ñëpp foofu la ñuy nekk foofu la ñuy nekk ba tool bi pare tool bàyyi euh, bare tut mi ngi am na am mais bare tut waaye nag indil na tool boo xam ne bii na moo gën a gaaw moo gën a yomb te moo gën a euh, euh, kii moo gën a gaaw a egg ci li nga am mu ne dind ci rek nga ñaqal sa sëriñ man nag buy man la man man la ma wóolu man mooy la nga am yëpp nga jox ko bàyyi dese bàyyi damay wax toujours ci suma waxtaan ne man mën naa joxe lu nekk dama wax keroog àjji ma ne yaa ne ne lenn rek lañ ko mën a waxee ne loolu lay tooñee jaamu yàlla yi euh, lu mu am dana ko joxe euh, bëgg bàyyi rek moo nekk ci xolam bi ñaar yooyu rek lañ ma mën a seedeel benn nag moo ci nekk boo xam ne itam mooy euh, lenn mën naa joxe lu nekk ba des sama bëggeel ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu Baye moom koo jox kenn waaw foofu moom sekkare la kon jëmm ju toll noonu ku ko am buñ ne na bésam bi jàpp nañ ko rek yow waratoo am jàmm yow bésam bi rek moo war a damaa wax ne euh, Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu bésam bi buñ ko jàppee tukki sax du ma ko def amu dara lu may programme ci digënté siyaare bay amu dara lu ci programme ndax man yi sama yitté yépp moy xidmal bay rek nek ci li bay bëgg rek man ci la nek mom la tan suma dox suma yëngatu suma dal suma wax sama lepp bay la suma lepp marana cheikh ibrahim ngass bay Baye radiyallahu ma ngi koy wax rek bima jige koo màkka euh, waxtaan ak njabot ko bam yag ma jaxaso fofu may len na ngeen ma jéggal damaa caalit rek te bu la sa sëriñ mayee il faut nga caalit mm, ayut sa sang bu la defalee te nga nekk jaamam il faut nga fecc waaye nag il faut tam nga caalit te bàyyi may nañu loo xam ne may gu rëy koo xam amul fu mu dalee amul fum mu kon nag kooku dañ ko war a xidmaal dañ ko war a bëgg waruñoo bëgg keneen waruñoo bëgg leneen waruñoo bëgg feneen lu du bàyyi waaye bëgg ko rek mooy njëriñ parce que mooy bàyyi bindeef yi lépp ci tenqam li la la la la la tege li jaami yàlla di rëj rëjoo yëpp mi ngi ci tenqal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu bëggal bàyyi rek li gën a wóor mooy bëgg bàyyi rek moo tax bàyyi dafa doon yontu bi salaa salaam comme ni ko waa ji waxee doon Cheikh Ahmada Tidiane Sarif radiyallahu ba pare nekk xut bu jamono nekk sowetaasi àddina yëpp sewetaas si àddina yëpp la la moo nekk Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu dafa ñëw pour sauver jaam jëlee la ci lëndam indi la ci leer génnee la ci ñàkk xam indi la ci xam nga jaar ci yoon boo xam ne bii na dafa dafa am dëkk mu tegg ci yoon bi indi la ci yoon bu nooy kooku bàyyi rekk ko man kon damay wax toujours ne ñett sëriñ moo am njëriñ ak sëriñ sëriñ mooy ki la jàngal alquran te xamalul la yàlla euh, këriñ mooy kila la xamalul yàlla jàngalul la alquran sëriñ njëriñ nag mooy ki la jàngal alquran xamal la yàlla te kooku mooy bàyyi kooku moo ñu indil alquran indil ñu marifa Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu dafa waxoon ne man sama euh, tarixa bii boo ci awee defee ko comme ni ma ko waxee te dëppaloo fi nga bëgg egg da nga fa egg ba ko Cheikh Mara Tidiane Chérif radiyallahu waxee nag egg ci yàllaa taxoon mu wax ko kon moo tax bi mu ñëwee ci xutbu jamono di sowe jaame yàlla yi nekk seen sowe taas nekk sowe taas yi àddina bi yëpp parce que damay wax toujours ne euh, Sénégal maanaam Saalum gii nii nga xam ne bi ne fi la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu nekk mooy salaamu gii firi mucc moo tax Saalum Saalum mooy firi salaamu gii firi mucc moo tax Baye bi mu ñëwee rek dëkkee Saalum ndaxte Saalum mooy salaamu gi firi mu ci ci Alxuraan waaw moo tax jërëjëfe Baay Ñas gu ma Abdoulaye kenn amul payam xam nga waroon nañ heure bu ne rek buñ xëyee di ko wax jërëjëfe Baay jërëjëfe Baay ba jant bi so rek ñu fanaan di ko wax jërëjëfe Baay jërëjëfe Baay bu bët set parce que jëfal nañu loo xam ne mënuñ koo fay waaw waaw jëfal nañu loo xam ne Baay lim ñu defal amul kenn ku ñu ko defal kenn defaluñu ko ñun jëmmi njëriñ lañ am waaye dafa paase sëriñ jëmmi njëriñ la dafa nekk jëmmi njëriñ sooy wax ci baay sax da nga jamono day daj waaw li waa ji wax ne mu ne xoolal ci jaww ji foo xool gis fa barxam loolu la de baay dafa daj àddina dafa daj jamono parce que moo tax mu nekk boroom jamono nekk xut bu jamono moo tax eh, sant yàlla bu baax alhamdulilah eh, ñu ngi gën a doolee sant yàlla ñu ngi gën a doolee sant yàlla di alhamdulilah alhamdulilah bi ñu amee eh, njëriñ lu tol ni moom jëmmi njëriñ nekk eh, danaa de wax ci suma biir waxtaan ne bëgg gi mu bëgg yonent bi salaa salaam ba nga xam ne kara bi mu siyaare jee yonent bi salaa nga xam ne dafa dem ba tàngoor lool kenn ci njobootam defal ko torsion ci xarxanam bi ne mu ne ko walaay ngees njobootam gi seedal ko ne ko walaay ngees àddina bi yëpp xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi rek nga bëgg bàyyi noppi ba ñëw ci otel bi muy bàyyi yëkkati liñ ko joxoon àdd yëpp jox ko ko ne du ngeen ma laaj lu tax ma jox ko ko ñëpp dóor seen jëy yi ci suuf ñëpp sëkk sukk di ko déglu ñëpp sëkk di ko déglu mu ne seede gëm seede sama bëgg yonent bi sallallahu alayhi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi moo tax ma jox ko lii kon kooku mbëggeelam ci yonent bi amul fu dalee amul moo tax bàyyi soo koy am rek am nga yonent bi am nga Cheikh Ahmada Tidiane Cherif radiyallahu am nga jëm yàlla ji ndax moom ci loolu la la nampatal sax terewut mu bëgg bëggaloo njabootam yonent bi salaa salaam bëggaloo njabootam Cheikh Ahmada Tidiane Cherif radiyallahu bëgg bëggaloo njabootam itam yàlla maanam yar leen ki diine islam jumaam ji soo ci duggee rek nga xam ne boroom xaatir bu rëy moo ko defar ndax xaal bi ci nekk. boo ci duggee rek da nga xam ne jumaa ji yàlla kese la maanaam jaamukatu yàlla jaamukaay yàlla bi nga xam ne benn moom la bàyyi defar ci jumaam ji képp ku fi dugg rek da nga yëg xaali yàlla bi maanaam da nga xam ne dugg nga ci xaali yàlla bi moo tax toujours damay wax ne euh, njaboot gi yëpp nañuy fonk bëri na bàyyi ndax ñun bàyyi lim ñu euh, may bëri na de jumaam ji bi mu koy tabax ñu rek ñoo tax mu tabax ko parce que moom dafa pare moom mooy jëmmi xam-xam kon kooku bu leen a jàngal dafa bëgg nga xam bi muy tabax jumaa ji benn soronam bi rek mën naa tabax étage bu bëri bu rëy ndax liñ defoon Cheikh Ahmada Tidiane de radiyallahu defoon nañ def nañ ko ko ci jumaam ji maanaam pied bi bu waree jël euh, euh, ñaari euh, kii ñaari saako ñi ñëw ne ko ñeenti saako wala juróomi saako def nañ ko bàyyi ci jumaam ji pied jumaa ji boo ci wéeroo rek xam ne euh, dafa dëgër li ko waral rek li ñuy seede foofu rek maanaam li ñuy wane foofu rek mooy ka nekkoon fa la rek moo nekkaat fii moo tax euh, indil nañu euh, jaamukaay yàlla maanaam ñiy julli jumaa nga xam ne danañ sellal suñ diine yonent bi salaa salaam indil nañu xadaratu jumaa mooy xadara bi nga xam ne bii na moom lañuy def ci tarakhatu cheikh mat tidiane manam bo demé tay fas dañuy xatara juma dañuy def yëpp lepp lo lepp lo gis fi fas rek bo ñëwee medina dang ko gis manam la nek fas mo nek medina la nek ci medina ak makka ga mo nek ci medina ak baye ngess gi ne radiallahu anhu kenn ki rek la moo tax ko ibrahima ji woye nako ko bi sàngoo palmaan bi mo waral ngërimaan ku la réeréer ngess lab ci waydun koo koy sidi barham kenn ki rek la walla gis kenn ki rek la du ñett du ñaar du ñeent kenn ki rek la moo tax euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi salaa salaam di euh, gërëm suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu euh, nga xam ne bii mooy suñ lépp ndax bàyyi mooy bàyyi mbindeef yi mooy bàyyi ñëpp ñëpp mooy seen bàyyi moo tax maanaam Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu mu ne woy njëkk woy mujj yëpp danañ jëriñu maanaam ñi njëkk danañ jëriñu ñi mujj danañ njëriñu ah Niass balaay jëmm ji moo baax ni mu rafetee noonu la baaxe ni mu taaroo Niass noonu la baaxee Niass Kumba Abdoulaye moo tax ku ko tagg da nga caalit ku ko bëgg da nga caalit force ndax kenn la moom kun fa yakun kenn la moo tax sëriñ benn la kenn la muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu place yi nag yaatu na la Mawlana Cheikh Ibrahim Fall waxoon rek Fall njëga yaram mu ne place yi taalibe yaatu foo daj foo jot rek toogal mu ne waaye benn rek la muy euh, Baye mu ne sées bi Baye toog na ci keneen toogatu ci kenn ki rek la waaw moo tax eh, ñi ngi sant yàlla bu baax di sant njaboot gi yépp nag maa ngi gërëm sama mbokki taalibi yépp di gërëm muqaddam yëpp eh, di ndokkeel bu baax tam njabootu Thierno eh, Assane Deme radiyallahu anhu di ndokkeel njabootam yëpp nag góor ñi ak jigéen ñëpp maa leen di ndokkeel di leen siyaare ci guddi Cheikh Ahmada Tidiane Chérif radiyallahu gi nga xam ne ñu ngi ko doon euh, kii taxawee fii ci pays bi di ndokkeel ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawee fële tam ci lew na nga seen maanaam ñi doon def guddi gi lew na nga seen tam ñu ngi leen di ndokkeel muy waa kër euh, waa kër maam Cheikh Tidiane Niass yi fële ci lew na nga seen maa ngi ndokkeel mbokki taalib bi yëpp jërëjëfe Baye jërëjëfe Baye jërëjëfe Baye jërëjëfe Baye Niass sama sëriñ bi Niass Gumba Abdoulaye asalaamaaleykum wa rahmatulah Niass. alhamdulilah rab mag baa ngi noonu jógee ci taalibe baay bu mag bi ñu jëm ci bésu baay bu mag bi muy siyaarem bi yàlla nañu ci yàlla yóbbu defal ko ci moom mi nga xam ne bëgg-bëggam ci baay xam nañ ne wér na te matale na lépp lu bëgg yàlla na ko ci baay defal mbokki taalibe ñu ngi leen di oowaat di oo suñ bopp di leen ñaaxaat di ñaax suñ bopp. di leen wax ne jëmm ji doon yëkkati ay kàddu li muy wax nii pour ñun la waaye ñun amuñ sikki sàkkane moom xam na ni muy jëflanteeg sëriñam te mu nga ci lool ñun nag la bëgg jëriñ moo tax comme ànd bi dafa ànd ak ñun pour jëriñ ci Cheikh Ibrahim yoon wi ñu war a aw pour jëriñu rek la ñuy wan ooteem bii ak lim ñu ciy xiirtal ak lim ñu ciy xiir ak yépp loolu rek la wallaay mbëggeelam ci sëriñam mat na de waaw te siyaare bi lépp dana mat waa yal nañ bokk ci ñi nga xam ne programme na ci ñun mu matee ko loolu nag mooy nañ bëgg rek loolu laf ñu loolu lañuy wax bëgg gi mooy lan jóg di yëngatu bëgg-bëgg taalibe loolu rek la maanaam jóg di yëngatu bu mu wax ne poose bi dara nekku ci rek damay toog déedéet da ngay jóg yëngatu jóg dox ay kilomètres jóg ñaq waa xalaat seet ay pexe seet fooy aw ba yëngatu bu ko defee bu ñu yëngatoo li ci des moom ñu mom ko Cheikh Ibrahim waaw moom mooy borom xéewal yi borom kii suñ bëgg bu ñoree mu wér na ñu ñor na rek liñ bëgg ci CRM bi mu defal ñu ko yaa booy ñu ngi lay ñaanal yàlla ci suñ ñu ndaw yi waa yàlla la Cheikh Ibrahim defal li nga bëgg ci CRM xam nañ ne loolu rek mooy sa bëgg-bëgg li nga bëgg bu amee rek CRM bi lépp waxuma euh, yow li nga war a joxe waaye ñeneen ñi li ñu war a joxe sax dana yewee naa li <laughs> yàlla na la ko bàyyi defal ñu ngi lay ñaanal loolu waaw ci barki sa sëriñ ñu ngi santaat yàlla beneen yoon di wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye di ko baamtuwaat ci jërëjëfi sama yaay gi mu ko sant ndax moom la ñu bàyyi sedd ni ma ko waxee kon bu santee Baye dañ ko koy santale yaa booy ñu ngi san ñu ngi lay santale sa sëriñ ci bésam bi mag bii ñu jég bi waaw